ma jóg bàkki njaag mi borom cant yee xam ni njaagay sëriñ saaliwu ma jóg mi borom cant yee xam ni njaagay sëriñ saaliwu ci gil bàkke maam faat jaxate moom la buur yàlla jagleel sëriñ ci saayir sa laay tàmbaleeg baatinam ba ngeen xam maqaamam Sëriñ Saaliw maqaama ki Musa wa kalaamu laay moom la buur yàlla jagleel Sëriñ Saaliw maqaamam Daawuda ci baatam mu neex moom la buur yàlla jagleel Sëriñ Saaliw maqaama ki Musa wa kalaamu laay moom la buur yàlla jagleel sëriñ saaliw bu yamal xiyaamee ci bis biñ ci la ñuy xam garaatug baayu sëriñ Cheikh saaliw xasaayit ba Cheikh Bamba naan ik fi nii ci lay lim turam ba mooy sëriñ saaliw xasaayit ga Cheikh Bamba naan ik fi nii ci lay lim turam ba mooy sëriñ saaliw ca bis pénc ba la ñuy xam garaatug baayu sëriñ Cheikh Saliou bu yawmal xiyaame ca bis la ñuy xam garaatug baayu sëriñ Cheikh Saliou xasaayit ga Seex Bamba naa fi nii ca lay turam wa sëriñ Saliou sëriñ Saliou Juuf ay ñoñam ñoñam raw nanu te dootu leen dappa Seex Saliou sëriñ Saaliwu Juuf ay ñoñam ñoñam raw nono te kenn dootu leen dafa seex Saaliwu wa hablana noorun ala noorayni nang nu defal saadatu daarayni wa hablana noorun ala noorayni nang nu defal saadatu daarayni liyan xaadatil ujoor wal masaaliho bi tey wal jës bi wa inni sëriñ Saaliw